li yëpp ko waxoon nañu ko ñu nekk ci système bi ñëpp seen bopp lañ fi nekkal. Hmm. imagine li yow lu mel ni assemblée nationale Farba Ngom toog fa di nelaw di seet ay aadamu kooku respecté na askan. kooku respecté na askan bi Youssou Ndour 2012 fii la téye saaku ceeb di wër naan ceeb dafa seer ba mu demee ba bokk ci système bi dem ba Macky Sall def lu ko neex maanaam dañuy bind du génn wax dafa war a génn wax ñi xam ne kii nii ànd na askan bi. mais moom bind na bind na message am na fu mu war a am na fu mu waxee. mais bind na message. Youssou Ndour dafa waroon a génn toog a askan bi ne li leen métti métti na mu te wallaahi azim ñi bokk nguur gi nekkoon si nguur gi ñëpp jamono ji <laughs> dañoo feebar. Youssou Ndour am na fu mu waxee. am na waxukaay am na télévision. Mhm. fekkee li muy wax nii métti na ko. day génn toog si askan bi ne nangam ak nangam métti na. mais est-ce na ko. dafa loo xam ne dafa rafetul si jamono jii. ah si Lamine Niass du Youssou Ndour de. jamono jii nii gis na askan bi sonn nañ askan bi billaahi wallaahi soo wàccee si suuf nga xam askan bi mer nañ sonn nañ saaku ceeb seer na. diwlin seer na juróomi junne. tey jii kan mooy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko léegi doo ko wax kenn jamono ji ñëpp xam nañ ko ndax ñu bëri sax xamal ñu bëri ñu ngi génnaat naan Ousmane Sonko baa ñu àq. Mhm. da doon saaga waaye xam na ne yaa nekk si dëkk. ñu bëri ñu ngi génnaat di wax Ousmane baal ñu àq leen lay wax foofu mooy patriote yi. Mhm. li ma gis si kanam incha allah rabbi yàlla baax patriote bu ñu découragé mukk. te day yàlla suy defar day mel ni kuy yàq. mais nag. Mhm. balaa ñu dem ci Ousmane Sonko yan façon seet ngay seet pour askan bi ñu lay seetaan. général alhamdulilah man ñu bari xam nañ ma jamono ji ci wàllu seet man maa lay seetal wax la loo war a liggéey wax la sa couleur wax la lan moo baax si yow hmm. ñu bari ñoo xam ne jëflante naa ñoom te yàlla si seet la ko jaarale. Hmm. dama lay seet wax la li nekk sa yaram nga ne as ah, bi man ne li nga ma seetal kenn mësuma kaa seetal te incha allahu rabbi amul nit bu ma seetal te gisuma nit ñi nag dañoo lëndëm am na ñoo xam ne dañoo mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla ba seen mooy yàlla waaye man damay seet ñetti façon seet damay seet seetu ramd bëri nañu naan mën nañ ko damay seet seetu raw xaaniyu damay seet ay nu juum damay listixaar si kàttanu yàlla même seetu ndox mi sax dañ koy def mhm. suñu yàlla boole askan bi mu ñëw su ñun ñu seetal ko wallahi dañu ko gis rus naa ne di waat ci caaxaan am na solo mhm. rus nga di waat ci caaxaan mhm. kon képp ku bëgg seet seetlu mën na la woo insha allah rabbi dañuy